condamné nañ ko emprisonné nañ ko condamné ko révoqué ko léegi ndax euh, kiraayu malaanu député am ndax dañ koy tegg ginnaaw bi ñu teggee euh, immunité parlementaire ci jamono yooyu passé bu fekkee ne sama xel naxuma ci article 61 de la constitution dinaa ko seetaat dafa may ministère de la justice mu bind bataaxal yónnee ko assemblée nationale bu dee dem nañ ba jamono ci jamono yi ñu toll nii mu laaj assemblée nationale maanaam pencum ndaw réew mi laaj leen ci turu gouvernement bi ñu dindi lii nga xam ni moom mooy sañ-sañu xalifa mooy ndomb tànkam ci wàllu député te loolu loolu ragal naa ne ci la ñuy mujjeek moom ndax loolu yoon moo leen ko may mais nag liñ ci mën a jàpp rek mooy lii nga xam ne Macky Sall mi ngi koy def di ko teg ci kaw kalifa Sall yoon moo ko ko xàllal te bu fekkee ne responsabilité dafa am responsabilité Macky Sall la responsabilité yoon la ndax ñoom dañu waat. dañu waat taxaw ne ñoom lépp duñu wax teg lu ñuy wax lu ñuy def ci yoon nañ koy teg seen aqulay taala ci seen teeyu bakkan ak ci seen xel li tubaab li Victor gi di wax conscience waaye dafa mel ni mbir yi boo ko seetee ba seet maanaam agenda la maanaam pexe bu ñu laloon la mais pexe bii ñu koy nas fii mu nekk nii mujjanteel la mooy fexe ba xalifa ñu tëj ko dindi lépp loo xam ne lii ay sañ-sañam la ay àqam ak ay ndomb tànkam dafa mel ni loolu la ñu doon wundu ah loolu la loolu daal la la mujjee mbir yi daal boo ko seetee euh, te nga mën ko jàngat xool lépp li nga xam ne mooy àqam le droit de la mu jëkk ci ba mu nekkee député mu jëkk ci bañ ko jàppee ne nañ wut avocat kooku taxawu ko ñu dindi loolu joxuñu ko avocat mu dem ba nekk député assemblée nationale article cinquante et un du règlement intérieur ne député ku xas ba nekk député dañuy wax de suspension des poursuites sursis pour poursuites maanaam du ñu doon topp dañ koy bàyyi ba dindi sa muuru kóor la kii laay maanaam euh, euh, immunité parlementaire bu ñu lay atte atte la daanaka sax am na ci réew yoo xam ni bu ñu lay atte sax da ngay dem ba sa mandat jeex ñu soog lay topp ndax tant yaa ngi nekk député yaag président assemblée nationale président de la république yéen a askan wi moo leen fal kenn warulaa mën a topp yi loolu yëpp def nga ko ci cour CEDEA ñëw ne lii ngeen teg ci yoon xalifa tegu leen ko fenn bàyyi leen ko mu dem ndax dafa am ay loo xam ne lii ay dëng-dëng rëq-rëq yu am ci njëlbéen ga ci ni ngeen tënkee euh, procès bi acte bi ngeen ko tënk bi daf ci am ay njuumte yu bari te njuumte yi sur la forme su ci amee dañu war a bàyyi nit ki mu dem këram ñu dooraat procès bi instruction bi commencé ko ci njëlbéen nga ba ak siwaat fenn bu ñu koy jàpp ñu jàpp ko bu ñu ko dul jàpp bu ñu ko jàpp ñu bàyyi ko